ci la nga xamante ne moo jëm ci élection locale yi bindu bi euh, ban taxawaay ban jàngat ci 88 628 98 98 salaamaaleykum. waaleykum salaam. aha. El Hadj Birame Ndiaye. waaw. ñu ngi laa ziar. delloo ziar. Matar la am Guèye Kër Saiga. aha Matar waaw. Birame euh, inondation yi da cee bokk wala. déedéet bokk ci. ah ok d'accord. Mhm. voilà concernant affaire accident yi. waaw. Euh, Moussa ñu ngi koy mettitlu en tant que chauffeur en tant que transporteur di ñaawlu aussi nag encore une fois comportement yenn chauffeurs yi ça il faut le mm-hmm. parce que ñu gis nañu li nekk ci tali bi te Birama. Mm-hmm. oto du fayukaay. Mm-hmm. Matar Lam Gueye Kër Sega bu mu ne dellu si laata ñu yëkkati jotaayu xibaar yi laata loolu ñu jël keneen ci ligne bi asalaamaaleykum allo. allo sëñ bi. allo. waaw sëñ bi noo tudd ak fooy wootee. Sud FM. waaw Sud FM waaw. Birama. waaw kooku. Ibou Mafe maan aéroport. Ibou naka. Ibou Mafe taximaan AIBD. waaw Ibou yow la ñuy teewlu Ibou Mafe. Birama. waaw. chauffeur yi foog ñuy respecté code de la route. Mhm. parce que mënoo nekk si di dawal oto ba pare yow dëkk boo jub ñu bindal la cinquante à l'heure nga fay daw quatre-vingt-dix il faut que ñu respecter li ñu tableau yi di wax parce que li ñuy li li wax le problème chauffeur la problème chauffeur yi la du problème yoon. parce que mënoo jub yow Kaolack ñu wax la Kaolack nga war a dox cinquante à l'heure nga jub Thiadiaye ñu ne la cinquante nga fa nga dul muy chauffeur transport en commun muy chauffeur yu gërëm porteur yi chauffeur yëpp. Hmm. chauffeur bu ñu doon respecté pendant signalisation yi benn njombe du am. mais indiscipline total total dafa am ci chauffeur am na chauffeur muy jariñ xamuñu tableau bi lu muy hmm. nañ wax bu baax a baax. Mm. parce que liñ liñ liñ tableau yi ñu leen bindal bu ñu dee xool tableau yi di nga xam ne man limitation de vitesse dëkk bii ma jub nii quarante la war a daw mais jub jub ab dëkk di fi daw quatre-vingt-dix à l'heure lu la traversé nga ko muy mbaam di nga ko rey. Mm-hmm. wax dëgg yàlla moom chauffeur yi moom wax dëgg yàlla war nañoo sàmmaat seen bopp bu baax a xam ne ñoom diplôme bi ñu yor kenn yoru ko transport en commun du caaxaan. Mm-hmm. permis six tampon lañ la jox ba pare ngay di caaxaan di dawal di wax téléphone jaaduwut nañ jóg ci yooyu parce que dafa war a ay ay radar ak yooyu yuy capté yooyu parce que nit li ñuy def dafa ëpp. Hmm. di dawal téléphone yor bis bu yor cent cinq place dañuy daw di wax téléphone di whatsapp yooyu yëpp dañ cee war a wax liñ si fii li fi nekk li ñu war a wax dafa bari. Hmm. jërëjëf Birama kontaan naa. jërëjëf Ibou si taximan foofee ca AIBD accident yi la ñuy waxtaanee mbas mi ak jongante gox goxaat yi asalaamaaleykum. allo. salaamaaleykum. salaamaaleykum. maaleykum salaam. Birama waaw. Malick ñoo ngi seer bu baax a baax a baax. Malick ñëwati nga ak sa gaay yi. ah. ma ne ñëwati nga ak sa gaay yi loo loo leen di wax. Ah, lu ma leen di wax bi day yokk rek mais du wàññiku. ah déet waay Malick. Birama li ma la wax kay du dañ. fi dara lu koy dindi dara. dara defuñu ko fi lu koy dindi. Hmm. gis nga Birama. Hmm. wolof dafa wax ne. Hmm. jote day jiitu joote. te ku bëgg a rey jaan ci kawam ngay dóor. ku bëgg a rey jaan. Mm-hmm. ci kaw jaan ja ngay dóor mais doo bàyyi ba jaan ja jàll ngay dóor ca watit wa. doo mm-hmm. ko rey. Mm-hmm. loolu reyul jaan. gis nga ministère bi nee nañu dégguma ko. mais nee nañu wax na ministère Mali wax ñoom ñaar ñëpp wax nañu. moo tax jàmm jaam laa am bañ waree wax waxuñu bañ waree def defuñu. bis bu set ma wax leen ko gis nga biraama ñun sénégalais dañu bari nës nës ak tappale ñun sénégalais laa wax kon maa ngi ci digg bi gis nga biraama maliens yi moomuñu Sénégal te maliens yi li may wax du question raciste muy muy safooru camion Sénégal ak bu Mali lañ ci yemale ñoo ci bokk yem waaye pour wax la rek maliens yi moomuñu senegal te it wooxuñu leen pour ñu ñëw Sénégal ñoom ñoo am soxla di ñëw Sénégal ñun noo defar tali yi noo noo ñoo ñoo jiite réew mi kon ñun ñoo war a rëdd ne leen nii ngeen di jaare bis bu set li ñuy wax xam nga dafa am fële yu Sénégal man xaw ma lu ñu dal dangay dégg ñu ne Maliens yi ku ñu dajal ci digg tali bi la ñuy jaar lu leen neex la ñuy def ku ñu yàq si yëf nga yàq ku ñu rey nga perte. Mhm. pour lan pour lan loolu nu mën a amee. moo tax ma ne leen fii wax naa ko mille fois dama koy waxaat. da gis nga woote yii ñuy jox député yi xam naa danañ ne dama leen bañ bañuma leen mais dafa ëpp ak milliards yi ñuy denc. Mhm. ñu war a génn Mhm. jërëjëf Malick Sall ca Italie ñu daal di jël keneen ci 88 lay doon 628 98 98. salaamaaleykum. maaleykum salaam Birama. waaw. maa ngi lay siyaare Mamadou Fadou Ala. delloo ziar Dia. waaye am jàmm di siyaare bu baax sama ñetti osaasi foofu di leen gudd fan ak wér ak xéewal. di siyaare monsieur Mabo ba ca Fatick di ko ñaan gudd fan ak xéewal moo ko njabootam. bu loolu jàllee nag accident yi moom wax dëgg yàlla bari na. Hmm. Euh, waaye nag taxul nag bu accident amee nga jóg ne da fajal sa bopp loolu moom na ko askan wi teg ci suuf. Hmm. parce moo xam ne bu ñëwee day ñëw rek accident moom day ñëw par gént. am na ci yoo xam ne nag comme ni gi waxee sànq yu bari am nañ ci ay responsabilité hmm. parce que safar yi boo gisee ni ñuy daw li baaxut boo leen waxee ñu wuccax lay loxo saaga la xamewuñ ci ma sàmba wala ma demba ñenn ñi dañuy jëfandikoo luy changé seenu xel ñenn ñi dañuy nelaw ñenn ñi dañuy yow ay portable yooyu yëpp nag takk der yi nga xam ne ñoo ne ci kaw télévision ci mën a dimbali buñ la arrêté nga taxaw jar nañu jox la sax looy wal boo gëmmantoo ñu la gaareel bu bu suba du too ko jëlee il faut ñu weye ci hmm. parce que accident yi bari na ca métti na te safari camion yi ci bari dañ koy provoqué du ma ne nag waa Mali rek ñoo fi def accident parce que camion Mali yi ba Sénégal soso ba léegi ñu ngi fi daw te li ñu fi def accident tax def naa ne ko bari lool suñu safari yi ñoo ëpp lu ñuy accidenté fu ëpp lu ñu rëy ay nit kon boog bu benn ak camion Mali accidenté rek ñu bëgg ca falaxe oto yi Mali yëpp koo xam ne daa góorgóorlu muy daw nga tojaale ko ci lakk ko ci kenn du ko fay loolu lu métti la te ku ku métti wut yow dalaa dalul ku am oto camion di ci wut góorgóorlu jox ko sa wër mu ciy liggéey ñu lakkaale ko tojaale ko ci am nga lu métti loolu dal kon yooyu nañ koy moytu te yooyu mm, mm, mm, euh, président Macky Sall moom buggul benn violence du ca làmb ji du ca oto yi du ca fenn du ca football ba kon bokk loolu xam naa dana ci seq ay jéego yu mag a mag ba jàmm gën cee am bu soob yàlla merci beaucoup. Mhm. jërëjëf Mamor ca Padoa ñu daal di jàll euh, jël keneen ci 88 lay doon 628 98 98. salaamaaleykum waaleykum salaam. Eh, Birama Ndiaye na def. sant ba alhamdulilah. maa ngi nuyu euh, auditeur bi ma dugal. Mhm. di nuyu waa Sud FM yëpp. maar auditeur dugalul ci Amérique. Mhm. Birama Ndiaye. waaw maar waaw. am nga Séné sénégalais. dafa nekk koo xamante ne day lay déglu ba pare bu wane gannaaw ni kii li wax du ma ci dara. Hmm. nee naa leen li am ci àdduna bi jamono bi ñu toll nañu xam ne suñu borom bi tabaara wa taala moo ko def muy wàllu mbas bii nit ñi nañu ciy def dànk. Hmm. maa ngi dégg sànq ci rajo bi am kuy wax naan moom ba mu pikiroo dañ ñu ko xaaratu ñu xool ndax dana la def dara wala du la def dara kat loolu moo lay wax ni la ña la pikir wóoluwuñu pikir bi. non dañuy xool ci rajo lañu wax ñun ci rajo lañu wax. maar ah. maar. maa ngi lay dégg loolu dañuy xool ndax effet secondaire la parce que médicament bu nekk am na ay effet secondaire looloo tax ñu naan ko na xool ba xam ndax du def effet secondaire. du question wóoluwuñu waaw amul benn amul benn vaccin bu ñu lay def nga xam ci dara ci tàng-tàng mënul nekk ñun xam nañ mu demee mais duñ ci dugg parce business jàmbur la mais li ma lay wax moom mooy. Hmm. président africain yi. li ñu leen di jox xaalis wàllu corona bi ak ni ñu koy par euh, partagé ak di ko communiqué. Hmm. ñun xam nañu nu mu demee. xam nañu mu demee kan damay wax man samay mbokk ak samay xarit bu ñu ma dee déglu bu baax nañu def ndànk ci affaire pig yi foofu ca Sénégal man lool laa leen di conseillé ku ko ci dégg baax na ku ko déggul baax na. lii yàlla moo ko indi siburu rek siburu la rek siburu nag yàgg naa ñëw Sénégal ñu jël ñoo ak di faju di jël ci affaire africain yi di ko utiliser mu mu koy dindi 100 pour entraîneel di ndox mu bëri masque bi bu ko takk toute la journée boo ko defee yàlla dala ci muccal Sénégal la nekk amul ci àdduna bi gis nga doomu aadama nit ku ñuul dafa am higher system euh, dafa am higher system boo xamante ne kii la. jërëjëf maar woote ca Amérique ñu daal di jël keneen ci 88 lay doon. 628 98 98 biti réew 33 841 22 33 salaamaaleykum. Birama. waaw. Ndiaye. aha kooku. man la maa ngi wootee Italie man la Cheikh Bey daa bëgg a bokk ci accident yi. aha Cheikh waaw. waaw Ndiaye na ngeen def. sant ba baax alhamdulilah. tubaarkalla. aha. accident yi daal xam naa man euh, chauffeur laa moom munoon dawal Sénégal awa may dem Italie. Hmm. waaye li wér te wóor mooy li nga li moo ko mën a moo ko mën a wàññi. Hmm. d'accord naa kenn ku nekk ku la neex mooy sa baay mooy la ngay da koy lang wala da nga koy jàngi nga jàngi ci oto waaye kot moom. Hmm. Euh, il faut ñu sens sensé ko li nga xam ne moo ci tane li ma ma yaakaar ne moo ci tane daal kot moom force ñu sensé ko nga xam ne force nga jaar ci oto école bi mu jàngal la kot moom. Hmm. boo jàngalee kot ba mu am ne kii jënd fi ay leçon maa ko jàngal kot. Cheikh Béthio Thioly bu mu ne dellu si laata ñoo yëkkati jotaayu xibaar yi mu dellu si lu ko may ñu jël keneen biti réew 33 841 22 33. salaamaaleykum. Ah, waaleykum salaam Birama. waaw. Njaay waay ñoo ngi lay nuyu. delloo ziar Moustapha yàggaay nga bokkal liggéey bi yëpp. ñoo ngi la koy delloo. di yàlla musal leen ci lépp lu luy lore. amiin ñu bokk. waaw maa ngi nuyu saa ak mbokk yi déglu yëpp. Mhm. Birama am réew. waaw ay lois yu seweer lañ koy lañ koy yore. Hmm. waaye gis nga ñii. waaye boo ñu baal ma waaye gis nga dafay nuru kenn xamul lan lay nuru. day mel ni affaire soob parce que Birama da ngay hmm. xool accident yi depuis ay ati ati ati ati at. li ñuy rey chauffeur yi. buy vraiment bëgg dee ñu naan yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla bay sa tool. Hmm. buy waxee ñu naan tal yi baaxul boo boo dee dawal ci tali bu baaxul da ngay dawal dawal ak kuy dawal ci tali bu baaxul. Hmm. waaye doo doo ne tali bi baaxul ba pare ngay ngay accélérer sa waaye lu la neex daw yow dèjà xa faale woo ay ay signalisation ay signal ak yu kenn xamul. mais loolu loolu loolu lépp lu ko waral yépp mooy état boo xam ne bii ak ña nga xam ne ñoo yor contrôle yi defuñu seen liggéey. Hmm. defuñu seen liggéey gis nga fii permis bu ñu la ko joxee fukki point ak benn la. boo boo taxawut stop sign am na luñ ci teq bu ñu la jàppee bu ñu la kii boo demee ci kii bi am na luñ ci jël ci point moo xam trois la wala quatre dix-huit hmm. mois yi boo ci amee ñetti accident wala ñeent yi demee noonu ñu nungu sa permis ñu tëral sa permis comme ça mais Sénégal ci boppam kenn xamut chauffeur yi lu leen neex la def te ñi leen war a yar loi defuñu ko pour kenn loi dañ koy defar teg ko pour boo jubee jubal mucc ci bu fekkee da ngaa dëkk ci dëngal nag yoon daal ci kaw dal ci loo def lu nekk ak daan daan ba mu tolloog. Mhm. mais Sénégal ci boppam mooy réew moo xam ne mii nit ñi dëgg nañu ko seen yoon newut ci loi te ñi ñi nga xam ne ñoo war a yor loi bi di ko doxal ñu seen liggéey waaw ñi nga xam ne ñoo war a nekk ci tali bi gëm mu nañ ci duñu xool pa panneau yu yi si duñu xool lampe bu mhm. toj wala leen. Mhm. jërëjëf Moustapha ca États-Unis ñu jël keneen ci 88 lay doon 628 98 98 biti réew 33 841 22 33 salaamaaleykum. waaleykum salaam. Birama ah, waaw. Euh, maa doon wax léegi mu dagg Matar laa am. Ah, Matar waaw waxal Matar waxal ñu sa ginnaaw ne yaa am. d'accord gars yi xam naa mën nañu rajo. voilà man de xam naa léegi mu <laughs> dagg sax parce que. acca waaw acca damaa amoon appel acca waaw. ay yu sévère par rapport ak comportement yenn chauffeur yi du ñëpp nag hmm. transporteurs yi aussi ñu xool ñan la ñuy jox seen ay oto suñu góor gu baax rek yàlla na yàlla xare ko aljana alaaj alaaj njaga njaay gis nga Birama boo a ñëw présenté ko chauffeur hmm. wala nga ñëw présenté wu jox sa permis ko dama bëgg oto daf lay wax demal ànd ko la fi indi hmm. sa patron wala sa papa wala sa nijaay wala koo xamante bi chauffeur la jërëjëf euh, Matar Lam Gueye Kër Sega ñu daal di yëkkati jotaayu xibaar yi sant leen gërëm leen gërëm bu baax Alassane Thioune mi féete ci xarala gi ci kanam tuuti 18h xëy ki leen di Xabsa wan ñëw génn ci xibaar yi ci yaatal ci français lay doon ñu bàyyi leen ngeen wéyandi ak seen programme seen rajo.